wa innaka la ala xuluqin azim wajjahtu abkaara amdaaxi liman sharaxa sadri bihi llahu inda al-bahri fansharaxa kaddu gi ñuy jottali nag kaddu la boo xam ne daanaka borom royaaxiin moo ko defoon ci digganal Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafisahullahu wa raa te mu jëm ci xew-xew bu siiw bi nga xam ne yéen ñépp yéen a ngi koy dégg muy ay baat wala ay jëf yoo xam ne am na ay nooni lislaam yu ko jëmale ci yonentub lislaam bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy baat yoo xam ne yéenul ci kenn waaye nag rawatina ku mel noonu di sallallahu alayhi wa sallam lu mel noonu nag bu amee ñépp ko war a ñaawal ñépp ko war a weddi waaye rawatina nag fii ci Tuubaa nga xam ne ki fi nekk bañ na ko ba moom daa tuddee boppam xaadimul rasul nga xam ne day mel ni bu kenn doon aar yonent bi bu kenn doon défendre yonent bi moom moo ci war a njëkk moo ci war a jiitu ndax loolu la tuddee boppam kon wax bi ñu koy wax ci turu sëriñ bi moo ko bind moo ko bindulu waxalu ko ñu wax ko ci turam dafa wax ne bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala alzalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin am wa baad fa inna almasaasa bi jaanibi nabiyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa intihaaka xurmatihi bi ay nawin min anwaai intihaak masaasun bi aqidati almuslimina ajmain wa jarxun li mashaa'iri aksari min milyaar wa nisf min albashar wa iimaanu almar'i laa yakmulu illaa idaa kaana annabiyu ahabba ilayhi min kulli shay'in misdaaqan li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wannaasi ajmain wa min haza almuntalaq tunaddidu rawdu rayaxin gaayat altandid bilmuxawalat albaisa lilisaati ila alnabiyi sal allahu alayhi wa sallam birusumi alkarikatiriya kama yastankiru almawqif almuxzi alladi ittaxadahu muaxaran alrais alfaransi Emmanuel Macron min hazihi arusum almusia وتدعو الدائرة الرئيس الفرنسي بوجه خاص والمجتمع الغربي بوجه عام إلى احترام معتقدات المسلمين ورموزهم الدينية وتؤكد روم الرياحين أن الاحترام المتبادل بين أصحاب المعتقدات المختلفة هو الضمان للسلام والاستقرار في العالم وهما غايتان يجب على عقلاء البشرية أن يسعوا إلى تحقيقها وتماشيا مع تعاليم الشيخ القديم رضي الله تعالى عنه تؤكد الدائرة ضرورة ضرورة استخدام الوسائل السلمية لحل الخلافات في العالم كما كما تذكر جميع المسلمين بالوعد الإلهي بإتمام نور الله ولو كره الكافرون وبالبشارة النبوية بظهور الإسلام بقوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويقول عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت ولا يترك الله بيتا بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز بعز عزيز أو بذل ذليل عز العز عزا يعز الإسلام يعز الإسلام به وذلا يذل الله به الكفر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طوبى تسعة ربيع الأول 1433 loolu ñu ngi diñ koy tënkee rek mooy sëriñ bi day wane foofu ne ci turu murid yëpp ak ci turu jullit yëpp mi ngi xamle ne ku laal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga xotti war maam ak xeet woo ko mën a xottee xotti nga war mooy jullit yëpp laal nga xolub jullit yëpp ndax yonente bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne moom la jullit yi gën a bëgg ci seen bopp annabiyu awla bil muminina min anfusihim moom lañ gën a bëgg ci seen bopp te bëgg koy dafa bokk ci seen gëm-gëm sopp ko dafa bokk ci seen gëm-gëm ba lépp lu ko laal lu sori ak lu jege laal na jullit yëpp laal na mboolem àdduna bi yëpp kon lii nga xam ne moo am muy ay noonu lislaam jël yonent bi sallallahu alayhi wa di ko foyee jël yonent bi sallallahu alayhi sallam di ko ñaawal loolu kat daayira bi ak mboolem murid yi ci turu bi ñu ngi koy ñaawlu fu ñaawlu yam ñu ngi koy weddi it fu weddi yam di di di di jëmale ci ñi nga xam ne ñoo koy def ñu xam ne lii indi jàmm ci àdduna bi mooy kenn ku ne war la sa morom gëm nga war ko te respecté ko ca loola loolu mooy indi jàmm ci àdduna muy indi ak dal ci àdduna kon mi ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu ànd ak seen xel ànd ak seen teey te xam ne gëm-gëmu doomu aadama du lu ñuy fooyee gëm-gëmu doomu aadama du lu ñuy kallakalee kon sëriñ bi ngi leen di woo ñoom ñëpp ci ñu ànd ak seen xel ci doxal loolu nga xam ne moom la ci ñoom ñi ko sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu waxee daayira bi mi nga xam ne ne sëñ Tuubaa moom lépp loo xam ne mi ngi koy yëngatu da koy yëngatu ci jàmm da koy yëngatu ci ak dalal ñi muy ñi muy fàttalee ji bi yëpp ñu xam ne suñu borom tabaraka wa taala mooy aar diine jii mooy aar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nii ko ki doon waxtaan léegi waxee ba noonu yàlla jógee dal ca makka ka ko aar mooy te boobu yonent bi ñëwagul waaye yàlla suñu borom tabaraka wa taala moo ko aar ca ca ca suuratul fiil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi aad alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil noonee mu amee woon noonu la mën a amee waat ba léegi tam suñu borom tabaraka wa taala moo moom diineem te moo koy aaral boppam moo indi ak yonent bi moo koy aaral boppam yuriduuna an yutfiu nuura allahi bi afwaahihim wa yaxba allahu illa an yutima nuurahu walaw kariha alkaafiruun loolu ba ko yàllay wax yàgg na lool naka jekk am ñoo xam ne dañoo jóg ngir fay lislaam dañoo jóg ngir fay diine diine sunu borom tabaraka wa taala ji waaye yàlla nee na dañuy sonn waaye sama diine ji day gën a kawe day gën a yëkkatiku rek ba faw seen wax jooju du ca mën dara loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it leeral na ko nee na diine jii danañ dem ba foo xam ne néeg bu nekk dana ca dugg néeg bu làqu ak bu néeg bu lënd lépp dana ca dugg te yàlla dana ñi ko yor yàlla dana suufeel ñi nga xam ne ànduñu ak ak ak moom loolu daal mooy li nga xam ne sëriñ bi mi doon na ko xamle tey xamle nag li nga xam ne mooy faj loolu lépp mooy guddi gii ñu nekk tey àdduna bépp di ko màggal rawatina Sénégal rawatina fii ci Touba loolu mooy mooy faj mer mi dëgg dëgg dëgg dëgg loolu moo koy faj du ay wax ju bari du ay tontu yu bari waaye tontu li mooy lii ñu nekk tey di ko def taxawal guddi yu mel nii di wane suñu cofeel ci yonent bi sallallahu di wane sant bu ñuy sant yàlla ci feeñal bi ñu ko feeñal ci digg ci ci guddi gii loolu mooy li nga xam ne mooy tontul dëgg dëgg dëgg li wax daa mënta ñàkk rek waaye lii mooy jëf ji jëf ji mooy dundal guddi gi jëf ji mooy sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëf ji mooy roy ko topp ko xeñtu sunnaam ba képp ko la gis xam ne yow mii kat ki nga topp jar naa topp kon mi ngi digal ñëpp li ñuy fajee ñaaw ñaaw yii li ñuy fajee jëf yii mooy fas yéene roy ci yonente bi sallallahu alayhi wa li nga xam ne noonu la ko doon royee ba ne salaatu sitta bi ma mati sitta taatihi batta maa tisaa'i séddale ak dundam yépp juróom benn weer muy tagg yonent bi juróom benn weer muy julli ci moom te la tax mu di ko def mooy rek roy ko kon li muy digal taalibe yépp mooy nañ roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ñu leen fekk nañ ko roy fu ñu leen fekk nañ koy roy ci ay wax nañ koy roy ci ay jëf nañ koy roy ci ay melo loolu moo li nga xam ne mooy faj naqar wi nga xam ne moo ñu naqari lu ñu naqari rek bàyyi ko jullit yi wàcc guñ wàcc yoon wi leen yonent bi tegoon sallallahu alayhi wa sallam moo ko waral kon nañ tegowaat ci kaw yoon wa fas yéene kenn du ñu ca wàccee ak ku mu mën a doon nag wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa tabbitanhu bil haadi al wafi